xam wax nañu fa ay kaddu yoo xam ne yu ñàkk war ma la kaddu yoo xam ne ay tooxi doona la yéene kaay gi nee na place de la nation place de l'obélisque foofee tamit niki démb bëri na ñoo xam ne dañu fa doon manifester di wane seen naqar teg nañu leen loxo yéene kaay gi di laas nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko démb xeex na fa ak député bii nga xam ne mooy Amadou Mbéri Sylla Ousmane Sonko ñoom ñaar xeex bu saf sàpp lañu fa xeex maître Malick Sall moom nag démb def na tojaange fi nga xam ne mooy ca assemblée nationale ndax dem na bay wax yi am na yenn doxalin ak yenn jëfin yoo xam ne mbaam rek ko koy def te képp koo xam ne jàpp nga ne yaa def yëfu mbaam yow laay waxal yéen kaay gi di waa grand place Ousmane Sonko nee na mbiri si la moo ma attaqué ko ba futti ko lenn lu nekk nag mën naa koo maye waaye nag munu maa maye ñu may attaqué physiquement wara saara nee na maître Malick Sall yow yaa nar a toj réew mi mbiri si la niki démb bi nee na bi ñu ko dóoree maanaam bët bi dafa ne wi maraakiis yi benn mu nekk am fu mu jaara mbu muy xottee ko yéen kaay gi du l'observateur maître Malick Sall nee na na ñàkk nag nag voté ñaari projet de loi yi la waral bokk na ci Sénégal liste rouge fa la ñu ko naroon a yóbbu ci lu jëm ci wàllum blanchiment d'argent ak wàllum financement terrorisme ndax nag Sénégal dafa bokk ci ay kuréel yoo xam ne ñoo ngi koy teg bët te Sénégal dafa ratifié li nga xam ne mooy ay convention internationale jamono ji jotoon na sëkk nag ngir ñu daal di voté ñaari projet de loi yooyee loolee kàddu yi maître Malick Sall la yéen kaay gi di Sud nee na ñi nga xam ne ñooy opposition bi nee na ñu nag xeex bi duñu ko yemali dem fi nga xam ne mooy conseil constitutionnel daal di ko fay kalaame yéen kaay gi de Les Échos nee en tout cas li nga xam ne nemmeeku nañ ko démb ci assemblée nationale ñu bare bare mbir mi metti na leen mel na nag ay xale yu ndaw nekkoon fa doon saagantey nday yéen kaay gi nee na kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko ci député bii di Toussaint Manga bokk ci PDS ak député bii di Mame Diarra bokk ci PDS ak Anna Gomis député bokk ci APR ak Alioune Dumburu Sow député bokk ci APR kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko fa kàddu yoo xam ne yu doy a doy waar la yéen kaay gi di 24 heures Serigne Mansour moo ko metti ci mbir yi mooy Macky Sall dafa amul lenn loo xam ne jàngee na ko ci li tax Abdoulaye Wade maanaam daanu li tax Sénégal yi jéppi Abdoulaye Wade amul lenn loo xam ne Macky Sall daan ko say jàngee yéen a kaay gi ñu fekk fa Cheikh Bara Dolly nee na nag Macky Sall bu dee nag Sénégal am na benn terroriste maanaam Macky Sall la Macky Sall mooy terroriste bi njëkk ci réew mi ndax moo fi nekk di terroriser nit ñi Thierno Bocoum jël kàddu gi nee na Macky Sall dafa nekk ci réew mi di terroriser askanu Sénégal waaye nag am na loo xam ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Déthié nee na nag Macky Sall bay boo mu tabax ay kasu bare bare bare ndax nag ñun daal danañu résister résister moom dinañu ko def ci nii wala ci naa te nag vision président Macky bi nga xam ne man Déthié Fall maa ne woon vision président Macky Sall jam ñaajo la yam léegi sax jóge jam ñaajo ma nga mbëbës yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Moustapha Guirassy nee nag projet yi daal lenn warulu ko lu dul Macky Sall moo xam ne dafa bëgg a def beneenu mandat ci bopp ci biti daal maanaam am jaasi dina la dal yéen a kaay gi di source nee na ministre Félix Antoine Diome démb nag fooyiwul benn yoon li nga xam ne maanaam mooy kaaraange gi nee ma bi Dakaaru njaay gi yëpp ay policier lañ ko jaloon yéen a kaay gi du l'observateur na ci modification code pénal bi nga xam ne jëm na ci wàllum terrorisme en tout ay sujets yoo xamante ni dégg nañ ko fa lu lu jëm ci wàllum aji sar ak nag a kaay gi lu toll ci fanweer ci ay organisation yoo nag ñoo ngi Macky Sall mu bañ a promulguer li nga xam ne mooy loi bi maanaam daa di def ndànk ñu toog daa di koy waxtaane yéen kaay gii di laas nee na nag ni ki démb ñi nga xam na ñooy journaliste yi maanaam teg nañu leen fitna police moo fa jaar yéen kaay gi di Libération ak Le Soleil di ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum xeex Covid 19 ak accès à l'électricité bourse de sécurité familiale loolee tax na banque mondiale génne na lu toll ci deux cent trente huit milliards ngir fas jox Sénégal yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy séeq waxtaan bii di Ngaaka Blindé turam dëgg di Baba Ndiaye rappeur bii di Ngaaka Blindé lu mu waxul ci journal bi def koo fàtte wax na ni nga xam ne moom la doore musique bi waaye nag nee na bi muy xale musuta xalaat ne bis dina ñëw mu daal di way lenn lu nekk xalaatoon na ko def ko ba mu des musique daat nay wax ne loolee destin la waaye nag nee na musique daal wala ñi nga xam ne ñoo ko inspiré mooy Fou malaat ak ki nga xam ne mooy Pakoti wax na ci arrestation bi nga xam ne defoon nañ ko ko ba jël ko yóbbu ko sa kaso ba jëm ci wàllum faux billets yéen gi di estat coupe d'Europe bi tey jii diggante Italie ak Ukraine yéen a kaay